ay nouvelle bu wàcc dernière du jugee foofee ca CAF ci coupe d'Afrique des nations bi di ñëw war a laal Sénégal ak yeneen ak yeneen 23 ñooy doon ci liste feuille de match bi waaye dinaa leen expliquer nu muy demee mais 27 day dem salaam gars yi bégg naa leen nuyu ku ci nekk seen tur seen sant jamono yële président fédération ivoirienne de football bi génnoon na di leeral que ni CAF dafay autoriser 27 joueurs ñooy dem ci coupe d'Afrique kon bii weesu effectivement 27 yooyu moom lañ officialisé moom lañ confirmé mooy dem. mais mai 23 moom mooy bokk ci feuille dem match yi nga xam ne ñiy war a football maanaam groupe bi war a football 23 lay doon léegi 4 ya des ci turbine bi la ñuy toog chaque match dafay choisir coach bi dafay choisir 23 yi war a dem bàyyi yeneen 4 yi ci turbine mu ngi noone loolu la règlement FIFA ak CAF bi euh, génnee ci dernier moment bi ci Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne ca lañ jëm noonee may ne xaar ci commentaire yi nag loolee ngeen gis noonee ànd ngeen ci uppa ak nan ngeen ko gisee ba tey baax na l'essentiel ñuy mën a prévoir blessures yi ak yeneen ak yeneen imprévu yi waaye yamaatuñ foofu leneen lañ ca tegaat jour euh, mën naa ni le trois janvier mooy dernier délai bi ñu war a déposer liste yi nga xam ne ñoo war a euh, compétir ci. coupe d'Afrique des nations bi nga xam ne day am foofee ca Côte d'Ivoire yamaatuñu de blessure euh, mën naa ni vingt quatre heures avant premier match bi di nga mën a def changement avec certificat médical nga mën a changer joueur bi yooyu yëpp moo jot a am j'espère que leer na seen bopp dara ëlëmu leen avec Paasa dañ leen di tegal lépp ci table sur le plat ngeen jot ko savouré ko dund ko ci njàmm ak salaam yàlla ñu yàlla jël coupe d'Afrique des nations bu loolu weesoo gars yi kookee di Samu Global Business dafay maye. AirPods ak moyen Al Nass ci Coupe d'Afrique bii di jëm xam nga dafa ne promo décembre ci iPhone yi képp ku bëgg may la ci AirPods ak sa Apple yi compte am mu ngi noonu ma tagee ci sama sama bio tik sama TikTok nii si euh, description bi boo ko bësee dalay lay yóbbu dina am benn vidéo bu jàll foofu boo xam ne maa ko def foofu di la expliquer nan la lay maye loolee di accessoire Apple yi mën na sax dem ba di la may iPhone et tout moom daal macha allah jàmm ci yéen gars yi yoon ci yeneen vidéo merci Fassane sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka su dul noonu bien ñoo far na avec mon bro. walaay ndeysaan. saa yi gerte la quoi. ñoo far. avec mon grand Diouf. mais bëgg nañ ci waa. mais Bamada. lan nga wax.

un. bëgg kuy am. dara rek nga ko bëgg kuy am. dara rek nga ko drapeau Sénégal. Alhamdulillah. لعلك تعقلن نفسك إذا تقوم إن لم تؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا ولما لك والرحيم كانوا من آياتنا عجبا مستوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن mokkal alxuraan tey moom la ñu def mokkal alxuraan moom seen yaay nañu kontaan vraiment loolu nag leen bu baax a baax yaatu macha allah. Богома, те не десь